ndeysaan mbokk yi si naan SBT ndeysaan mbokk yi ñu ngi fi nga xam ne ni moom mooy ci ci sànq rajo bu tënkee bool production moom moo fi woote bu Assane Ndiaye combat bu rëy dox si ñaari xale yoo xam ne ni. ndeysaan mbokk yi ki nga xam ne moom mooy Saloum moom lañ jàkkaarloo Darago moo ne ginnaaw ñaari xale yaa ngay leetoo ci diggante Saloum ak Darago. ñaari xale yaa ngay leetoo Sall mooy jëlañ tànk bi dañ koy daan daan nañ ko daan nañ ko laa ilaaha illallah Saalum daan nañ la kenn di moom grand Cheikh Diaw mooy lamb nee na ko lamb yi di yàgg exemple bi jógee mu for ko bi yëpp nii la maa ngi koy wax kii léegi nee naa combat bi du yàgg mënut a mat cinq minutes combat bi ndax Drago bu ñangal bii mooy sixième combat Dakar six victoire yëpp Baol Production ko tëgg Sèye Diaw yow la Assane Ndiaye borom bool production mbokk yi rek moom moo fi wootee avec maa ngi wax ak ñaari xale yi muy grand combat bi li ñu lamb bëgg ak li lamb bañ ndeysaan mbokk yi Petit Baye Fall lañ jàkkaarloo waaye ki nga xam moom mooy Scorpion moo ñu wan ginnaaw ndeysaan xam nga ñaari xale yi zone technique moo leen boole ndax zone technique moo daan ki nga xam moom mooy Petit Baye Fall waaye Scorpion nag fii la ko daan doon gis dëngëj waaye Scorpion moom mujjee nag ki nga xam ne moom daanaka xale yaa ngi leetoo ndeysaan ñoom ñoo ñëpp tàggu daje nañ jiitoo ki nga xam ne nii moom mooy Petit Baye Fall dégg na leetoo bi Scorpion moo ñu mën ginnaaw ak Petit Baye Fall ña ngay leetoo ñaari xale yaa ngi leetoo Grand Cheikh Diaw Cheikh Diaw caati nga wala ñu koy félicité bu yàggee ma la bu gaawee moom la ndax scorpion comme dafa ñëw fekk si ko te mag la day taxaw déglu ko rek. te nekk xale moo war a dirigé. est ce que scorpion bi ñàkk na kattan. non liggéey na liggéey na ndax dafa jógee dafa jógee ci combat ñëwaat ci na coup jël na mag la day fer rek taxaw déglu. daf may daf may regressé jaw lu ma si lamb dañ ndeysaan waaye scorpion a fayu scorpion ak ki xam ne moom mooy petit bay fall ña ngay létoo waaye buy doon nag na moytu pour Baye Fall ndax jël ko du tànk la te bu jëlee tànk day bëre ndeysaan ñaari xale yaa ngay leetoo ak bi a ndeysaan kenn du moom mu ne tànk ba cëppat bëre moom daan ko jël bu rëy ndeysaan jël tànk ba jël tànk na ko ak bi lu xew ñu déglu arbitre ñu déglu arbitre dara xewagul ndeysaan eh. xewagul ba léegi dara xewagul ñaari mbër yaa ngay leetoo Petit Baye Fall ak Escorpion Petit Baye Fall jokkas na. kon nga ko jëlee tànk ba. solo bu ñu bàyyi ba da ngaa juum nit boo ko daanee da nga koy bàyyi ndeysaan ndeysaan waaye nañu foo rek ñu xam ne ndam li génnul Sénégal lépp Sénégal la hey hey hey hey hey ndeysaan waa ji waa ji ragal na <laughs> waa ji mooy ragal tey eh, kii baax du xeex. bonkal bonkal bonkal bu wér bés yéen tawut si la. Eh. ndeysaan ndeysaan Assane Ndiaye moo fi woote woon fii ci Tëngéej ndeysaan mu nekkoon lamb ju nee nag eh, ay nekkoon ay lamb xale yu doy waar ay xale yu bëri wane ko seen bopp grand Cheikh Diaw liggéey bi ngeen di liggéey ci lamb am solo gi mu am solo loolu la nga xam ne yéen fan mënti woote rek ñu nga leen fekk see. waaw loolu la yàlla taxaw xam nga nit moom boo nekkee ci dara yaa ngi yoon waxoo ko ci di liggéey di teg ci yoon ni rek la la yàlla dimbale ndax ku sonn rek yàlla fay la xaj na ku sonn yàlla fay la te dafa sonn ci lamb moo Assane Ndiaye kon dafa xam ne yéen boo ñu tegoon ñaari ñaari muus sax yóbbu leen fu leen neex boo amateur dañuy wisi loolu lan la non amateur yi ñoo gëm production ndax bool production du defante day def rek day liggéey journée da koy jaral lu nekk des fois dañuy toog di xuloo ba kenn ku nekk jaar fenn mais nag kenn ku nekk boo nekkee ci réew pour xool lu la sa réew defal xalaatal li nga defal sa réew Taasan Njaay lépp la defal réewam lépp làmb yàq liggéeyam làmb yàq commerce am làmb yàq tukkeem mais nag yàlla baax na ku yàgg ci teen bi baax fekk la ci. tey daa kontaan ngeen rek. waaw kontaan nañ wax dëgg yàlla ndax na ñëw nañ tëngee ñu dalal ñu teeral ñu jàppale ñu waaw ba yàlla def mu commencé ci jàmm jeex ci jàmm alhamdulilah. Bawol Mbooloo ak Boy Naar Fall bu écurie Gris Mouride. Petit Baye Fall numéro 2 Thiatou Mbombay bu écurie Rebeuss. boobu mooy sama combat. non combat bërëkkat la. combat bërëkkat la ñaari xar la léegi léegi li ñu mën a xaar la douze. non la douze lañ xaar lépp ndax euh, animation bi dina bëri combat yi dina neex dañ ko teg ci yoon daal ci kattanu yàlla ñu ngi ciy liggéey. te yàggatul dara ñëpp dinañ ko gis. léegi léegi léegi Petit Baye Fall non man euh, BMW ak Petit Niang loolu xëy na la combat bu rëy boobu. waaw beneen petit ñaar novembre lañ ko bëgg a def ñu ngi ciy liggéey ñu ngi taxawal nañ grand combat bi ñu ngi dox yeneen komba dañu ñu a tijjee loolu rek développement jëm ci kanam li jënd la saison bi quoi ndax itam comme saison ren bi dafa xat booy seet bool production deux journées la def xaw ma trois journées dañuy waajal journée saison bii di ñëw gën liggéey liggéeyaat mooy loolu yàlla baax na. maa ngi dégg nag a ngi togg ba su mag maa ngi koy dégg de. waaw sori na mais yàlla baax na yàlla baax na bu ñëpp xam fa nga jëm doyee nañu Sénégal ñaanal rek. yàlla bari na sutura